Balde ngi noonu. walaay ndeysaan waaw waaw. Fallou. non non danse la mën danse la mën. tey loolu. Moussa Ba Gueye. li nga defoon sax mu gën a ko def de. bu la neexee ah jaayu bi. jaayul jaayul. bi gi day fecc ñooy bàkku. waaw man de Ada Fass ñëw na mu bàkku. non non soo bàkkuwul nag. moom mooy xam nga li xew. non maa ngi toog mais bàkku naa. mooy sa yaram yëgu ko. Allah non non non non non Ama Baldé gi tas na ko. déglu dégg nga Ama Baldé gi yëngal stade bi. fii fii da ngay yëngu. Bégaay. waaw li ma Bégaay boo Ama Baldé gi yëngal dëkk dara amagul da ngay lëwtoo tey. Armé ñu ngi lëwtoo. ndigal moo leen woon ginnaaw. Armé ngeen jàkkaar lool. ñoom ñaar ñu ngi lëwtoo. ñoom ñaar dañoo yàgg a lëwtoo. Ama tuus na ba pare. waaw. géwalam na ko. non la géwal di mel ak bër dëgg la non la géwal daan mel ak buur ça c'est vrai non la géwal di mel ak kilifa deug la géwal yi ni dañuy way deug la ñii dañuy tek ñii dañuy wax ku ci nek ak sa métier ndeysaan sama xel alaaji Mansour may nuyu na la may caaga Fatim Gone nuyu naa la nuyu naa la bu baax Demba Ba mon frère nuyu naa la kenn du yow. ba gaay Ba l'ancien ministre Yankhoba Diattara l'ancien ministre des moo nu yóbbu woon di nuyu l'actuel ministre Ndeye Khady Diène Gaye ñu lay encouragé di la ñaanal yàlla may la fa gaa yi yóbbu football beeg sport bi nga yóbbu ko fu waajal nu Sénégal 2006 nga xamante ni ñu ngi jëm ci jeux olympiques pour la jeunesse muy amee fii ci Sénégal ñoo encouragé leen bu baax ñiy politique politique leen ñi politiqueul ñu bàyyi leen politiqueul waaye dinañ wax ci histoire waaye ku wax nga ko da ngay politique ñun dañoo am sañ-sañu wax sunuy maam li yooyu nekkoon seen liggéey ndeysaan et eh, prince kay et yow booy yow noo Kalando Kalando. Kalando. waaw eh, ah, nee Tigre laa ne ah, maa bëree woon ak tas yaakaar maa ko daanoon fii. tas yaakaar mi daan benn maa ko daan fii toog ci kawam. mais ma am combat. mais booy a wut beneen tur Kalando. Ah? ma tur Père. tur bu nice. nice waaw bi nga tey jël naa nice. <laughs> ah mais père jël ma jël naaj kay ba ma jël naaj rek. dama ne tur bu naaj laa la wax. tur bu rafet. waaw ñun père père ñun père Fatal dëkk école ba la nekk xam nga ko dégg mais war a jël. waaw gars yi war a jël ñu bëre. Doudou Sane na ñu bëre. ñaata war a bëre ci pongali. ñaata Doudou Sane war a njëkk a doole. Eh. waaw Doudou Sane bëgg naa eh. Eh, laa bëgg a Modou Sané bëgg naa ko na ñëw ñu bëre ay ay ay ay ay kii nii xamal ah, fii rek ñii di bëgg bëgg naa bëgg naa leen man xale laa te damay àndal la guddeeg bëccëg ñëw sa kër mais booba booy laa bi Père Mbaye Gueye feebaree mag Père Mbaye ñoo àndoon ah, maa la fekk ci salle nga toog di waxtaan ah, du yëg ci kaw du daa kii ñoo nekk foofu bëgg nga jàpp ci amaatoo combat amaatuma combat ba kun ma jox da do moo bëgg xalaat bon digal digal armée digal ngi ci diggu ndigal mi ngi së armée mi ngi sëkkatal ndigal. Eh, eh, ndigal eh. ginnaaw ndigal nag warul ba gisuma fu mu war a delloo ginnaaw ci. ah ci armée. ci armée logique war a ñëw bëri mais ndigal moo doon attaqué léegi nag armée koy topp. armée koy topp léegi. armée koy topp. armée ngi xeex di di di armée ko peñam. saa ci ah ndigal jël na ko. jël na ko waaw waaw. lii lañ soxla woon. ndigal jàpp na ci ngemb la. armée jàppul fenn daf ko bal ñaari loxo ponkal soo ko balee da nga perdre beaucoup soo ko balee sinon nga bal ko travailler combat bi sax dafa yéex dëbb na ko loxo ndejoor da koy crochet loxo càmmoñ moom ki nga xamante ne mooy armée benn baraag mbooloo ndigal école nit Balla Gaye Gris Bordeaux waaj a tuus kon Gris mooy waaj tuus waa bàkk nañ dëgg daawar mbay léegi de waa ndeysaan su mel mel mooy yimbee saas Samba Diop Samba Diop nga Angleterre moo doon jéego nuyu naa sama xarit yooyu Samba l'africain. Eh, ndigal ah ndigal waaw ah waaw ah bokkul bokkul bokkul bokkul. waaw da koo sàcc doole. da koo sàcc doole de. da koo doole après su respecté combat bi. la woon xaar. kon boog ndigal daan na ki nga xamante ne mooy armée benn baraak. léegi Bécaye am nga ay gan de. am ay gan yu mat gan. macha allah bisimilah. Aziz. mais joxal micro bi Abdoulaye. Abdoulaye am am téyel micro bi yow soo téyel micro kenn mënut a téye micro ndax lii nga ñu honoré gëj nañu ko gis. l'arène nationale remplie à craquer plus de 40 000 personnes ci stade bi. waaw loolu Abdoulaye Aziz remerciement lañ koy def. waaw di séntu aussi. ñeneen ñi def ko si ginnaawam. waaw waaw waaw loolu fan moom mooy dundal làmb. te ñeneen mu nekk moom rek tax moom rek day mel ni. du neex day mel ni junqoo bu am benn pompon te junqoo bi am ñee ay ay.